jërë ngeen jëf mbokki internet yi ñuy suivre fii ci Dakar People International ñu ngi leen di nuyuwaat kenn ku ne sa tur sa sant di amaat mbégte contentement jàkkaarloowaat ak yéen comme ni ñu koy faral di defee saa su ne di leen indil actualité mais aussi di leen toppal li nga xam ne moo di làmb ginnaaw bu ñu leen nuyuwaatee di amaat mbégte bu baax a baax te nag ñu ngi seet si suñu peex suñu xarit mais un icône mën nañ ko wax koo xam ne nii expert la ci làmb koo xam ne nii saa su waxaanee rek euh, euh, liñ naan lépp lu mu la wax ci làmb rek da nga koy daal di gis muy euh, père Birahim nekk koo xam ne nii kenn dootu ko présenté ci wàllum làmb mais kenn dootu ko présenté ci analyse u làmb te nag ñu seet si ko fii ci këram fas yéene waxtaan ak moom lu jëm ci làmb ji ndax làmb ji bëri na coow te làmb ju ne am na fi làmb ju ne jaar na fi te jàll te war na ñoo mën a gën a xel dolliwaat xale yi li ñu naan xel ñu xam ne làmb ji daa war a jàll te làmb ji day wees jeneen làmb day ñëwaat te làmb ju ne jaar na fi avant làmb ji di ñëw ñu gën a xamee ko ne sport la rek que le meilleur ki gagne xam ne suñu borom moom la jox ndam ni ki perte tamit gën a defarajuwaat xam ne yàlla noonu la ko dogalee waaye damay daal di koy nuyu rek daal di koy bàyyi mu nuyoog mbokk internet yi nga xam ne moom ñoo koy suivre fii ci Dakar People mu mu nuyoog ñoom salaamaaleykum papa maa ngi lay siyaar. waa jërëjëf bisimilah rahmaani rahiim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waa internet yi nga xam ne ñu ngi suivre euh, Dakar People bépp maa ngi leen di nuyu. ci seen tur ak di leen baal wax di leen baal. di ñaan ci yàlla gudd fan ak wér dina ko ñaanal sama bopp dina ko ñaanal di ñaan tamit a ah, seen site bi yàlla def ci jàmm def ci sutura def ci teraanga mm-hmm. waaw defal leen ci teraanga li ngeen ci bëgg yéen xam yàlla yàlla ko def te mu gën ci réew mi may nuyu bokki jullit yëpp nag Sénégal ñëpp di ñëpp jàmm réew yi jullit yëpp yàlla na ci yàlla def jàmm surtout suñu réewum Sénégal mii nag mm-hmm. waaw nañ ñaan ci yàlla yàlla def fi jàmm def fi jàmm jàmm ci la lépp xaj lu jàmm bokkul rek day euh, kenn du jàmm ka toog ca këram sax mm-hmm. te fekkewul ay wasa amul jàmm kon nag ñaan la ñaan defal jàmm maa ngi nuyu ñëpp si siyaare ñëpp nag waaw jërëjëf papa ñu ngi lay kontaanee bu baax a baax comme ni nga ko waxee rek jàmm ci la lépp xaj yàlla na yàlla yokk jàmm ji euh, mais papa ñu jëm ci làmb joo xam ne nii muy le 5 mu làmb ji bëri coow te ñu gis ne nga nekk ancien lutteur nekk koo xam ne nii tey def nga lu ne ci làmb mais aussi toppaat nga làmb ji à chaque fois mbër moo gis ne xale la mu nekk xale nga ne kii de champion la dañ ko bàyyi xel tôt ou tard dañuy gis wax jooju noonu ñu gis ne làmb ji tey ah, làmb ji ne jox na fi mais ñu dañoo jàpp ne jégg na doye ba fi mu ñu ci bëri sax euh, ragal nañoo dem ci arène bi ndax ay ay yoo xam ne ñu ko ci kiy dégg papa loolu. waaw xam nga boo ne làmb ji jéggi na dayoo. day daal di weesu cadre làmb. làmb mënut a jéggi dayoo ñaari mbër yu bëri la ñu. Modou Lo bis bu rëy bu nekk am na ko ci Sénégal. ba muy nekk mbappat di bëri foofu ci bayal bii ngeen romb nii. Mhm. fi la fële. nekk xale bu ndaw. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. la commencé di def jaloore ba fii Ama Baldé mhm. dab si ko ci làmb mhm. ñu fekkante ba moom itam gis nga ko mhm. muy doomi mbër dégg nga bàyyam am na jamono yoo xam ne kenn tudd mbër fii ci Sénégal te tuddoo ko mu Falaye Baldé man mii bi may ne xale seetaan naay combat li ma la wax ay 1965 66 xam naa ne euh, booba temps judduwu yaa ngi dégg kon tey moom it jamono yi kenn tudd mbër te tuddoo ko kon moom it làmb ji mu ngi ci jël wàllam te itam exploit bii mu def année yi passé ci nga xam mais combat bu rëy yàgg na fi am. combat yu mat combat yu mu bëreeg Balla Gaye yi mu bëreeg keneen ak keneen ak keneen yëpp ngi fi. lii dafa xew bees rek. comme moo bees nii moo taxaw ñu tudd ci ay roi des arènes nag affaire yu bees. yoo xam ne moo fi bees rek. moo tax bis bi rëy nii ah. la rek lamba rek ah. lamba la rek. waaw man man lamba jama man mi fi commencé bëri soixante-treize ba nëgë ni. fii ne kuy nekk ci lamba ji di takk ngemb. nga xam ne mbër yu bàyyi laa de. ñenn ñëpp yëpp gaañu mais ñi fi dese ko néew ku dul maam góor gi Njaay euh, ci ñi ma xam laa waree. doo Souleymane Diaw. doo karanti gisuma fi keneen ñoo xam ne ñii ci làmb fi mu ne ñuy dund. man ma ma maa leen jiitu ci làmb ji. ñeneen ñi ngi fi nekk yëpp ci làmb lañ ma fekk. 63 la gën jëkk a bëri jooni jooni. keroog dubalees booy bambara ñoo naa grand combat foofu ci Iba Mar Diop. kon kooku du benn bés du tey. fekk naa bis bu rëy bu ne. victoire bu ne gis naa ko ndam lu ne gis naa ko défaite bu ne gis naa ko mais damay moytu ngeen di wax naan père Birahim me lu mu wax mu am loolu sirku billaahi la bokkaale la ci yàlla la ab jurit lu wax ne suba lu ma wax mu am suba suba yàlla yàlla rek a xam kii suba yàlla rek a xam li xew suba man xaw ma ko ñu ngi toog fii di wax naan dimanche dimanche est-ce que ñun xam nañ dañ seetaan suba dimanche lamba ji day fi fekk man xaw ma ko yow xamoo ke ñi seetaan xamuñu ko yaa ngi dégg kon ñun nañ def attention ci nanga may am nanga may am déedéet man nag ni may analyser combat en tant qu'ancien lutteur damay jàkkaarloog ñaari mbër yi nii loolu li ma ci xamakus néew laa wax de sama xam-xam bariwul mais li ma ci xamakus néew mu ngi mooy ma jàkkaarloog ñaari mbër yi nii seen déplacement seen léewtoo seen xeex jàppante ba songo ba ñela jooyee ne ca biir la may gis ki mës sa bëri mënu koo wax ki mës sa takk ngem mënu koo wax parce que xamu ko man maa mën a toog fii tey ji ak ki mel ni man fooy bëre jaar ci bëre mu def lii man a ah, kii bu defoon lii def lii de kii bu defee lii def lii de loolu day jàkk fekk yaa ngi jàkkaaroo ñoom di leen gis waaye man Ama bale xaw ma këram xam naa ne zone bi mu dëkk rek parce que mas naa dem kii ñëng bi ki nekkoon président affaire école de lutte yi xaw ma nan ñëng ñu demoon benn réunion ñu ne ko waa Ama Baldé côté bii la dëkk yaa ngi dégg laa xam mosuma dugg seen kër ma allah Modou 2006 la gëj fi fii ci Thiès bi 2006 boobu ba léegi amagul licence d'or amul licence simple. kon man gis gisuma ko dégguma ko bu ñu doxee rek bu ñu gisantee dañoo dox ba daje. gis nañoo daje keroog bi ab la bi Macky Sall wootee fii te ñu demoon fa daje fa lañ daje. du ma gis kon nit nag boo xam fu muy entraîné gisoo fu muy yewoo gisoo du muy nekk xamoo formam xamoo ci condition xamoo ci entraîné dara bu loo ci wax da ngay wax loo neex. mais kii nga tiim nag seetaan ko muy entraînement nga di ko xool xam condition physique fan la toll xam rapidité fan la toll xam gardam fi la xam xam lii la nangam ak am na lu ci bari boo ko waxee da ngay wax loo neex rek mais li ngay wax dara xamoo ko ci bu de boo waxee tombé kii ne moo moo man mu daan nga ne waxoon naa la ko kële daanu nga ne ko waxoon naa day nangam yooyu ay lambatu waaye nuróowul ak ki nga xam ne nag dafa jàkkaarloog ñoom ñii di seetaan marché bi nii tiim mhm. jàkkaarloog ñoom ar bi ne seen diggante nag su ko defee nga xool nag déplacement ya arrêt de gauche nanga ba songo ba bëtt ba waa ji daw rasu nga daw fël daw kërëb kërëb ngela jooyee ca biir loolu ku mën a bëri rek ko mën a wax <laughs> booy ku mënta bëree a ko wax làmb ji nag dafa toj léegi man bu ma déglul bi ma déggee ñu naan diw làmbaloog la waa làmbaloog bu ma sa tak ngeem am na <laughs> ah la ñam na yow du di ñee diw misila hmm. te ma santal bal loolu mën naa nekk waaye dañuy nax nit ñi rek dañ leen nax rek da gis mbër yu mag yoo xam ne amatuñu fu ñu jëm tafu ci benn mbër bu am tur rek la ñuy wut pour di ci am dépasse moo tax duñ fa wax dëgg duñu bàyyi ñu ànd tasaar rek lañ fa nekke yàq diggante bi yàq diggante bi pour mën a jege mbër mi mbër mi nag moo war a yeewu xam ne kii damay wutal noonu ak ki may wutal nit ki may wutal nit tey naa ko ki may dàqal mboolo nag ma teg la de côté parce que yow amaloo ma njariñ parce que doo ma wax lu baax doo ma wax lu baax lu ma yàqal ma da nga naan diw kay nii nii defal nii mooy tulli mu daan sax dem ba kër ga nga ne ko daan nga mais dafa juum de won ko fi mu juumee wala mu daanu nga ne ko dara déet daanu nga nag mais attention ragal la daan ben ñaar ba wala benn bokk condition nga ñàkk wala beneen bi da ngaa juum ci biir bëri yooyu day am nga won ko fi mu juumee boo liggéey bu daje keneen du ko def ma defoon loolay xam-xam loolu ko deful nit mënoo ko jàngal booy ñëwal kon daal père su ma la ñu ci bëri léegi ñu ngi ànd ak mbëri mais daanaka dëgg gi pire duñ leen ko ko wax waaw parce que xamul tax mm-hmm. lay lay dépasse lañ cey mos ca waa ji dañ defe ne bu ñu ko waxee dëgg dootuñu mos lañ daan mos lañ leen di bokkal bu ñuy dem ah la la yaakaar ne bu ñu ko waxee ñàkk ko dañ leen bàyyi bopp ak seen bopp yàlla nit bu bàyyee boppam yàlla rek noppalu nit bu bàyyee boppam ak yàlla rek nopp yàlla la fi indi bi mu fi indi tàgguwul ken bu lay jëlu tàggu kenn kon tey boo bàyyee sa bopp rek léeg-léeg nga toog wërsëg fekk la boo doo xam gis nga fi ma toogoon noonu ngeen ma fekk ma toog nii benn booyu mbër mu ngi ma ba léegi ma toog xaw ma ko sax dama daan dégg turam rek ñu ne ko père Birahima nga ne toog yow mu daal di jàdd nuyu ma eh booy na def booy yu ngay luum la ngay luum maa ngi koy nuyu de passage waaw moo ci Mor Faram ne woon ne ko waaw nuyu ko mooy super Cheikh jamono xaw ma supeer jamono booy bu baax saan léegi rek tey laa ñu mos joxante loxo mu daal di ñëw rek lamb poosam ne ma père ma ñëw daal lamb poosam yëkkati xaalis jox ma mu ngi nii waaw léegi rek fi ma toog nga xam ne bi may génn sees di teg foofu ma ne loolu dañ ma fekk nit day bàyyi boppam ak yàlla te bañ a jaxase digg ci biir écrit yi di jaxasee ko fa loolu te loolu mbër yu mag yu bëree bëree da mooy wax yu ñaaw yi ñuy waxante ci stade bi di waxante ci mbër ak morom ma yooyu yëpp dañ ko war a dindi te xam naa loolu dañ ci waxtaan tuuti bala ngeen dem waaw mais père euh, su su su ma la déggee euh, à chaque fois man mbook man bi ma lay daal di suivre ba léegi man soo sooy analyse kenn sax du xam ne maanaam fii nga féetee te ku la xam-xamee la Modou Lo yàgg nga ko suivre te xam nga ko ndax je me rappelle le 29 juillet 2019 ba ngay wax euh, Eumeu Sène bi mu jàppee tànk bi daanu ko euh, fii la ñu fekk fii lañ ko seeraanee ba ni nga koy daanee waxoon nga kele bi mu ko daanee te noonu la ko daanee mm. mu nekk loo xam ne ni loo ràññe la euh, père ma gis ne maanaam à chaque fois da ngay bëgg di analyse ci diggante ñaari mbër yi te booy wax tey ki nga xam ne sax faraloo ko sax mais da nga koy waxal li nga xam ne tey baaxut ci moom très xam nga loolu soo gisee ma di ko def li ngay wax da nga ciy maandu maandu gi mooy da ngay wax te yàlla tax da ngay wax te yàlla tax combat boobu ngay wax noonu a Sène ak Modou Lo boobu a Sène ba ñuy dem mooy favori bi waaye gis naa ci biir action yi ni ma koy gisee te it dama lay wax benn booy de dëgg la de seetal ñi ma daan seetaan deewuñu ba jeex de ñi ma maaseel deewuñu ba beex de ñi ma mag deewuñu ba beex de ñi nga xam ne ñaar toog sama cumukaay sax deewuñu ba jeex xamoon nañ lu ma mën ak lu ma mënul yaa ngi dégg li ma la waaye xam naa ne action yoo xam ne feeg nit a koy def daanako am na action yoo xam ne bu ko nit defee ci mbër mu mën a bëri laa wax de jekku nga waaye daano booba temps ama seen mu jàpp temps ku Modou ne ko sempet taxaw na ma ko jeppee yenoo noonu taxul mu daan moo tax ma ne Bécaye li fii du daan te yàgg-yàgg day sonn teg ko te bu ko tegee bu koy teg bu koy teg boo xamul ni mu koy tegee moom mooy daano parce que dama la wax nag gis nga boo yoree dara ba toqi foog nga jox ko loxo bii wala nga teg ko suuf noppalu dafay am moo tax mbër boo ko ne coppet jël dafa am bëri boo xam ne boo ko ne coppet waaj jël da ngay def un pas avancé pour sojj ko ba mu nekk ci air bi dootul am appui waaye bu langee rek da ngay sonn te da nga koy teg surtout mbër mu mën a bëree tànk nag moo xam loolu waaw muy benn mhm. ñaareel ba am na jàppante boo xam ne waa ji bu jàppee nga teg pied gauche ki pied droit ñu jàkkaarloo waa am loxo sa loxo ca ngemb la bul bàyyi loxo droit bi libre bu fekkee pied gauche la jiital bu loxo bii bu libre nga ñàkk. bu xamee li war def de. parce que kon ama seen yu am na yu bëri def na ko. combat ba mënoon naa jeex. mais xamul la terminer. la ko doon terminer wala bu ko xamee ko. mais père doguma la foofu mais en tant que ancien mbër foofu noonu maanaam des fois da nga jekku mbër ba war koo daan ñu ñu la maanaam tey nanguwaat na nanguwaat fort bi nga amoon daan la lan moo koy waral da ngay perte connaissance wala foofu noonu énergie da ngay perte lu bëri nga jekku mbër ba war koo daan ba jekku mbër ba jàpp fu dëgër wala nga wër ko ndomb ba war koo daan wala nga jàpp ci tànk wër koo yëkkati mu xatar bi laan yooyu noonu très bien dafa am loo xam ne lii gis nga boo jekkoo nit yaa ngi ci danger hmm. maa la wax li boo jekkoo mbër boo jekkoo mbër nit laa wax parce que xam nga li ngay def waaye moom xam na li mu a def. yow nag boo xamee la nga war a def sóoraale moom la mu la fa la mën a def da nga koy sóoraale. da nga koy bàyyi xel bu ko defee du réussir parce que sóoraale won nga ko. am na gis naa fi démb ki démb benn combat Jacob booy boobu dëkk Kër Faray Balde. jarbaatam la xaw ma sëtam. Pokola combat bu métti maa ngi koy félicité mais euh, bëri na bu méttee kii. dem nañ ba ñu wër ko ndomba. ba mu ne yomer waa ji di ko yóotu ji da koo taful ci dënn bi da ko waroon seere taf ko ci dënn bi ba am erreur du am fi jaar waaye waa ji dafa mu di ko dab rek mu pewoote mu dem gis nga mu mu mu daal dem xam nga lu ko waral parce que jàpp ba mu ko waroon a jàpp ci ngema da ñëpp defe nañ jekk na mais jekkul que moo tax may léeg-léeg nga wër mbër ak di bëre ni koy jàppee yaakaar ne jekk nga yaakaar ne fii ne daan rek a def fekk yow yaa ngi ci danger bu rëy loolu nag xam koo xam mm-hmm. ku mën a bëre ku mën bëree xam loolu xam ne waaw ne nag moo tamit mu mën a bëree mm-hmm. boo ko jekkoo fekk bëri bi jeexagul jeexagul de fekk bëri bi jeexagul mm-hmm. bul ne day jeex de mm-hmm. parce que fi nga ko jekkoo mu war a tiit fala la xelam di dale te foofu mën na faa indi action lu nekk la fa indi mooy action ba day rëy action ba xam nga bëri euh, di tàgg sa bopp man duma koy def mais bëri naa fekk mbër bu ñuy wax Langsane boo man maa ngi fin de carrière ñaari combat xamu ñett laaj teg sax bàyyi si biir xeex bi bi ma dooree arène dal ko arène bi dal ko mu ne yome di ko songi mu déplacé ak dóor ma coup menton coup fii gis bi mu dóoree coup bi su ma xëccoon ma tëdd su dooli waatoon fa laa yem su dooli waatoon ñaari def dëgg la laa jëm wala ma defeenu wala mu xëcc ma boog ma tëdd waaye la ma may sens dafa jaar sama côté gauche pour dëj ma ma tatafu ngemb li loolu tax condition physique baax. yéen mbër maa ngi wax ak yéen. mbër mu ciy bëri te amoo condition physique doo yàgg ci làmb. man maa wax lii parce que am na condition physique yoo xam ne yi action mën naa gaaw nga perdre dem mais da taaw a dellu si maanaam da ngay teel récupérer parce que am teel a récupérer moo lay am day fekk nga am condition physique soo amee condition physique mën ngaa dem mais da teel a di ay franc seconde nga dellu moo tax bi ma laalee rek su nga dégg ma ne bëre ñaar ku mën a ruñaan mën rasu mënoo bëre mhm. sa bëre des na maa la wax li téere laa la wax de te ñi mën a bëre di ma déglu mhm. xam nañ li ma wax mbër day mën a riñaan mbër day mën a rasu mais gis nga ma daal rasu rek ba fëdd muy kort ma pousse euh, tànk ba mhm. mu génn ma jéggi muy kort ma jéggi bi ma tatafa ngembal yi ba dellu si laa tatafu ngembal nag ba ma jéggee euh, kort bi ba ma jéggee caxabal bi mu doon def si laa ko jéem a tuur muy ñëw ma jaar ci poqtaan bi buddi ko mu far tëdd moo tax sama patron ba ma nekkaloon day Sangoné Sall maa ngi koy nuyu de passage di ko ñaanal gudd fan Sangoné Sall moo nekkoon sama patron ca Sonatel ak Cheikh Tidiane Mbaye ak Alsane Diène maa ngi ñu baax ak waa Sonatel yi fa nekkoon yëpp ñi génn àddina yàlla yàlla yërëm leen ñi fi des it na yàlla bàyyi leen xam nga bi ñu xëyee dem bureau lu ma wax mhm. mu ne ma njaay bi la waa dama ne deena ma ne oh damaa du ne wooy sama waa dem na ma geesu gi situation ba changé mhm. ma ne moo ne sa waay demagul de <laughs> ma la gis nga yooyu action nag mhm. soo ko amee ci biir bëri bul toog sa man léeg-léeg dinaa gis sax nit taanu daan ci làmb ñëw ba ci microbi bi dafa ci plateau bi ni toog naan man damaa mën a bëri man damaa mën a bëri man damaa mën a ma ne ah, man nga waaye da ngaa rëcc da ngaa rëcc nit léeg-léeg mu am loo xam ne lu wërsëg ko may ak lu baax lu mu defoon te yàlla tax wala baax lu mu defoon waxtu yàlla def yàlla suturaal ko ak wala moom ñaanu waajur waaye combat bii du mën a bëri dafa rëcc dafa rëcc gis nga keroog mhm. yàlla ma suturaal bi ñëpp demee ba ñibbi mhm. damaa daal di julli gee mhm. avant may def sabaa witar ma julli ñaar rakk sante ko sama borom gàcce gu rëy laa doon am keroog waaye yàlla suturaal loolu nag gisuma booy yi di ko def man fii toujours damay toog ci télé bii seetaan combat xool nit di wax damaa mën a bëri ma xam ne kii daa rëcc tey rek mais dafa am sa am daanu bari na ci mbër yu nag bari na ci tamit mbër yu ndaw yi. Mm-hmm. waaw. ma mm-hmm. ne kii bés bés su delluwaateeg ndaanaan foofu am dina xam. xam waaw waaw waaw yow tam mm-hmm. téere la wax. mais papa ma dégg aussi nga jàkkaarloog ki nga xam ne moo di amaa bal na ko euh, yaa ngi am adversaire boo xam ne mbërëm tànk la tey euh, question bi ma lay laaj mooy que boo jàppoon si tànk bi en tant que ngay bërëg mbërëm tànk lan ngay def ci tànk bi Ama tamit dafa mel ni déggul question bi nga ko posé te Modou mbërëm tànk la te père yow ku loo xam-xam ne mbërëm tànk nga donte fekkewuñ say jamono waaye loolu dégg nañ ko ci mag ñi ñu koy wax sama tànkay booy boo ma yéen woon ba teg soo fekk daanoogu ma daanoogu ma waaye nag boo dajee ko xam ni ñuy jàppee tànk doo rëcc ba ma ci dajeeg Laurent Daba ndax na ma ca daan ma ca waaye bañ teel suwaatee dootuma da nga ko loolu parce que mayee tànk ci biir bëri wóorul ñaar nga yor du ma yor ñaar waa soo mayee sama soo amee taxawee sa ñaar jox ma sama benn ma am benn la am di est ce que loolu wóor na kon du fort taxawee benn tànk di bëri di def action wóor na Ah, moo tax loolu di ko maye loolu. Mm-hmm. ba tànk yi da nga ci war a gar sa bakkan ba kenn du jóg bu buñ la sàccee ba gis ci nag nga def ci la nga ci mën. Mm-hmm. foofu lay neexee sax. Mm-hmm. ci ngay daañu di jël spectacle boo xam ne bi dañ naan laa ilaha illa ay waay diw nu mu daane kii. laa ilaha illallah. waaye fekk ñëpp dar seen gémmiñ fekk na booba. dañ laa forcer ci tànk ba nga def ci la nga ci man waaye boo ko jaayee wane ko ni pour ñëw jël sa tànk du am sens. boo xamee ko dajeeg jàpp tànk loolu. Euh, Ama Baldé bu fekkee wax na loolu loolu yàgg na sax. benn adélo ba yàgg na. ci benn hôtel bu ñu dajoon fële ci Moustapha Gueye moo ñu fa yëngati woon maanaam kay rek xaw ma kat loolu yàgg na mënuñ ci laaj. Mm-hmm. waaw mbërum moom mu ngay staff. Mm-hmm. xam na bu xam nañu staffam bu fekkee ay ndaanaanu bërikat lañu. Mm-hmm. war ñoo xam ku jàpp tànk nan nga cey liggéey tànk boo jàppee nan ngay liggéey xam nga ko loolu moo doon loo bon bon entraîneur yi ne ci sa wet war nañoo xam yow dégg nga kii bu jàppee tànk nii la war a ki ngay adversaire bi nga xam fii la foore fii la feebale la mu feebale nga jéem cee jaar waaye la mu mën moytu ko la mu mën adversaire feeg mën a ko taxaw jàkkal ne adversaire bi kat fii la foore waaye fii la feebale fii nag bu ma fi jaaree musiba la loolu na kooku xamuloo ko way entraîneur mënoo ko entraîner soo àndee ak moom da nga koy gunge rek da nga koy gunge rek waaye amoo xam-xam boo ko jox de xam-xam boo ko jox waaw ah, itam ko bi ah. mënul ne ko moytu bi ah. muy jaar foo xam ne danger la ci moom te mënoo ko tere kay amoo xam-xam boo ko jàngal dëgg la wala fen la booy. mënoo koo yokk ah, loo ko yokk da nga koy wàññi rek. da ànd ak moom ndax dara ànd ak moom coow la ak mbox moom rek nga nga ànd ak moom. moom nga ànd ak moom ànde woo moom pour ma di ci am pour pour mën nga di ko jàngal. waaw mbërum tànk nag yow yaay jàng ni ngay jàppee tànk. loolu moom xëy na moom war na koo mën a xam. mais Modou attention de Modou neexul bari na feem yu bari daal. bëri na feem yu bëre te mburum tànk la te neexul daan ci tànk. te boo xoolee tamit ñoom moom waaye su ma doon moom it. tànk yooyu comme gudduma yu ma tànk du ma koy joxe. Hmm. dama koy dama koy denc ba ñu ma ca ma def la may def. Hmm. waaye joxe ko wóorul. ñu gis na ñoom ñaar ñëpp tamit fi ñu toll nii tolloo nañ ndax ki nga xam ne Ama Baldé boo xoolee sax poids am wàññi na ko ba xam ne tey xaw na méngoog Modou Modou tamit gis nañ ni vitesse la gën a indi maanaam comme yooyu muy def di rëpp di bëree ñu gis ne kon lamb donte sax xam naa ne duñ ci analyser mais xam naa ne lamb gën a li nga nga yokkee moo ci tontu la booy li nga li nga may cookaat dama xam ne dama xam ne papa dànk rek yéen ay jàngkat ngeen waaye ñun tamit danoo jàng da ngeen a jàngali ñun ñu jàngali ñun ay dongo daara la ñu te daara ju leneen ngi ci biir mhm. maa ngi nuyu sama sëriñ oustaz Alioune Sall Alioune Mbaye ak di nuyu waale tamit kii Mbacke si la sama doom jooju nit ñu baax mhm. maa ngi leen nuyu mhm. waaw li nga may laaj kay ba ma si tontu loolu la waaw nga ne ñëwal ñoom ñaar ñëpp fi mu toll nii boo xoolee ñi ngi ci seen i vitesse ndax amaa gis nañ ko mu fit daaw mel na ni fi doon nii moom na boppam Modou moom ku ko xam-xam ne maanaam. indi na ñëw par ci par kenn ah. kon nañ ñëw ci Ama maanaam Ama gis nañ ne mu perte benn poids boo xam ne ni wàññi na ko ci li ñu jàpp. waaw mais xam da nga xamoon poids bi mu doon pesé. non xam ma ko dama analyse dama xool lan moo la wax ne kon wàññi na poids boo déggee ñu ne poids bi kay da ngay ñëw waa ji day ñëw ne kii bi muy ñëw kat cent kilos la woon. Mm-hmm. waaye léegi mu ngi ci soixante dix kilos mu ngi ci quatre vingt nga xam ne kii wàññi na yow da ngaa ñaat da ngaa rek gis nga mu bu di ko daw rek dellu si waat ba di ko daw boobu dellu si looloo bëri du ci du du ci dara hmm. bokkul bul gis mbi def open press bu di ko daw bu di ko dellu si rek nga ne kii eh, kii top niveau déedéet looloo contact du benn de maay wax ak yéen hmm. looloo contact du benn de beneen bi a ah, hmm. mooy jos sa gant di dóor saak boo xam ne bii amul loxo du la delloo arrêt ne du dara waaw man nga toog dégg nga waa ji yor ay pavoom ay pavem teg loxo yi gauche bi nii nga jëm gauche droite gauche droite épercule nangam ni a ah, waay ki xeex bi mu yor fekk na xeex boobu xeex niroowul ak nga nit nga taxaw jàkkal mu bëxal ñër mu dóor la arrêt de gauche nga ne bëri mu dóor la crochet droite mhm. est-ce que benn la dóor ko dul fay yombul yombul waaye dóor koy fayu nag xaw naa ama bi mu ko fi songee kii te door ko dóor ko yu metti la xeex ba metti yëpp yëpp yëpp benn arrêt la ko ma bal Ama Baldé jeex bëree ba jeex gis ko est que kon boolu ak sa du benn la du benn de bu di ko daw fële jëw ñu ne toog ba dafa paani poids yooyu yëpp ay xalaat yu ngeen indi rek la waaye mbër mi entraîné su la waxul la ne biira biiram mënoo koo xam Modou Lo boo ko xool naa dafa wàññi poids dafa a gaaw ak nangam Modou fekk ant fekk woo entraînement am xool moom mu wax la la ci moom mënoo koo xam man maa toog fii ci Parcelles Assainies toog sama koñ fii naan la Modou Lo nii la mel ak naan la xam naa ne daal loo xam ne kenn du ko dindi. Mhm. ku mën a bëre la. moom waaw ku ñeme la. Mhm. ku mën a bëre la. ku dul découragé ci combat la it. Mhm. waaw lii moom mën naa ko ku indi kii waat ko man parce que seeraan naa ko mbapat jëlee naa ko fi mbapat yóbbu ko Iba Mar Diop muy bëre ba final 35000 yi mu jëkk a téye ci lamb maa taal sama oto dem ba seen kër baayam a ngi toog. yaayam a ngi toog ma ne ko góor a sa doom jii de boo amee si ñaan des na ko dégg mu ne ah, ma ne ma ne ma doom ju ma gërëm la man ci jën yi laay liggéey trois heures laa koy mu may jàppale ba sept heures mu dooraan ma ne ko ah des na ko mos a dégg de booba Moodu ma ne boo amee si ñaan dinañ ko mos a dégg waaye booba Moodu amul licence d'or amul licence simple lii wax naa ko mille fois ci rajo yeeg télévision yëpp Balla Gaye mi fii la daan taxaw day fii ci mbapat bi ba mujj gi benn jour maa am Gaston Mbengue moo ñu fee wutoon Gaston maa ngi koy nuyu. Mhm. di ko ñaanal wér di ko ñaanal sama bopp. Gaston Mbengue yàlla na yàlla may la wér may ko ñëpp. barakatu nit ku baax. waaw mhm. yaa ngi dégg. Mhm. ma ne ko euh, ñu an ñu andi ko baaba ma ne ko lees gis naa sa doom boo xam ne boo ko toppatoo loo ñàkkoon ci làmb di nga ko lekkaat. ne ma Omar nii la ma ko waxee ne ma Omar mu ne ma gis ma ko dégg ma ne ko doom kenn du ko jur sànni waaye kii soo ko toppatoo loo ci làmb di ko lekkaat. loolu ba ma koy wax. yaa yaa ngi loolu ba ma koy wax. booba moo ba ba Gaye commencé naa bëri ay petit combat nii booba Modou Lo mu commencé gul bëri moom. ba la Balla ko jiitu. kon Balla xaw jiitu ci moo ko jiitu ci làmb bi ci mbab combat yu ndaw yi dañoo dabante nag. Mhm. waaw mhm. waaw.